ñun nag dañu am tey lu ñu naqari moo ñu indi fii mhm. dafa am benn promoteur boo xam ne ba mu demee Europe am fa xaalisam ba mu ñëwee mënoon naa investir ci ay immeuble di ko loué di ci gagné wërsëgam moom kenn mhm. mu ne man du ma def loolu damay créer société ñu nit ñi di ci liggéey mu ñëw def ay stand fekk ñun ay parasol lañ doon def mu ne parasol yi méngoowul ak jamono jamono dafay avancé def ay stand am wan ko gouvernement bi ñooñu tamit accepté ko léegi bi nga xamante ne accepté nañ ko mu am nag 14 mars yu ñu ko jox ci kooku 19 communes d'arrondissement yi mu am ci 14 marché ñu continuer di ci liggéey ñëpp nawloo ñu ku fi ku xam marché samedi xam nga niñ ko doon baare léegi nag ñu dem ba ci kanam ñu commencé di tas marché yi marché bu ñu dem ba mu ñu ne lii moo fa am nangam nangam ñu si dindi contrat ba te contrat ba sax du jeex te buñ ko dindee duñ ñu tegaat feneen dañuy toog rek ne ñu foofu amatul ñu di ko def di ko def 14 marché ku ko doon def ba léegi nga am 5 marché bon bu léegi léegi société ba tas société boobu nag buñ ko tasee 3000 personnes ñooy taxawaalu ji 3000 personnes yooyu mooy ñi fiy jaay sans compter nag centaine de personnes yi liggéey ca société ba kon nag lu mel noonu su amee ci réew borom réew ma da koo war a soutenir dimbale ko te dimbale kii mooy dimbale diaspora bi encouragé leen ndax moo mu ngi jógee ci diaspora bi ñëw te créer société suñ ko ndax euh, fexee ba société ba daanu keneen koo xam ne yaa ngi woon ci diaspora bi doo ñemee créer société da ngay nekk fii di def ay immeuble di ko loué te loolu kenn du ci liggéey loolu développé wul réew kon nag nañ ko encouragé marché MADS la ñu soxla mbaar tant yi lañ soxla tant yi waaw tant yi la tant yi eh, waaw tant yi la ñu soxla ñun parasol yii 2003 la fi jogoon kon duñ toog ba 2020 ñu duñu ko indil di ñu arrière en 17 ans de derrière loolu la ñuy bañ loolu lañ àndul te moom tante yi bi mu ko defee da cee dawal xéewal ndax bu nekk 5000 francs la la koy joxe 5000 francs boobu dina la ci fayal assurance dina la ci defal stand bi nga toog normal dina la ci faral dina la ci joxal euh, sécurité léegi nag loolu ci mille francs te mu walbatiku di fayaat ay personnel am kooku moo lay wan ne réewam la bëgg ku bëgg nag sa réew noonu dañ laa war a jàppale mm-hmm. ñun nag ñu ngi commencé di ñaanee ci monsieur le président de la république Macky Sall président de tous les sénégalais ku fi mës a jaaxle woo ko yaakaar naa ne ñu ne suñu woote bii dina ko dégg te dinañu ko fajal 3000 personnes yii na leen na leen fajal seen soxla seen soxla bi benn lañ am mooy nañu defal delloosil MADS ñu dimbale ñu marché yi nga xam ne tasoon nañ ko ñu defaat ko mu taxaw lool daal mooy suñu problème loolu la ñu bëgg lii daal moom lañ moo ñu fii ndi tey te moom la ñuy ñaxtu. ñun benn naqar rek la ñu am mooy dañ fee nekk depuis 2003 ànd ak benn promoteur boo xam ni comme sama yaay jaar na ci Assane Fall di MADS di liggéey ak moom mu jox ñu stand jox ñu lépp. liñ bëgg nag dem nañ laaj ko loola naqari ba tax ñëwaatoo wax nañu li ko naqari li ko naqari mooy Sénégal la. di signé contrat en bon et due forme dem bam neexu ñu koy dagg te loolu ñemewuñ koo def tubaab ñemewuñ koo def turki ñemewuñ koo def anglais ñemewuñ koo def kenn loolu kenn ñemewu koo def Sénégal rek nga ko ñemee def contrat buy daw nga jekki-jekki dagg ko ay doomu aadama di ci liggéey liggéey plus de quatre mille et quelques loolu loolu tab loolu loolu nit ku créer emploi loolu président da ko war a jàpp ñi ngi ñaan nag ndimbal la ñuy ñaan son excellence monsieur le président de la république mu fexee ñu revenir la suñu promoteur bi di Assane Fall ndaxte gisoon nañ suñu bopp lool Marseille ku ne xam na ni da nga daan ñëw boo jugee sax bawal ñàmbur foo mën di jugee loolu naaj naaj naaj boo ñëwee sa place da nga ko fay fekk mais buñ fexee ba andiwaat ci anarchie bi ñu delloo nga xam ne ñëw pëjoxoo la di ñëw di njëkkantey place dinañ dem ba xeex am fi rayanda bu fi amee ñoom ñooy responsable nous voulons MADS loolu non loolu lañ bëgg ñu ngi remercier la première dame ñëw na ba ci marché samedi bi def ay assam taxaw photo ak jaaykat yi kon kooku am na considération boobu ñu def kon ñu ngi koy remercier de passage ñu ngi sàkku ndimbal ci son excellence monsieur de la République lenn lañ bëgg mu fexe ba jàppale Assane Fall Sénégalais la bu ay emploi di liggéey noo ko jàppale mu ñëwaat ñun loolu rek lañ bëgg je suis dans ce marché depuis euh, un fort bon temps mais en fait lorsque je suis venu dans ce marché j'ai pas trouvé comme ça le marché le marché m'avait vraiment inspiré Après mes depuis un certain bout de temps, depuis la pandémie, j'ai vu qu'ils ont poussé vraiment, euh, euh, ils, ont, ils ont essayé d'écarter les Mendes, le promoteur qui était là, le promoteur qui nous avait promis tout cela, le promoteur qui avait mis en œuvre des choses, qui, nous avait donné vraiment la chance de rêver qu'un jour, de, du jour au lendemain, vraiment, on peut devenir millionnaire. Imaginez dans ces situations-là, dans ces situations de, de, de, de parasols et de, et, de bâches Comment on peut exercer Vraiment, il n'est pas possible d'exercer notre travail. Imaginez, dans ce marché-là, on rencontre n'importe quelle personne. On, on, des autorités, euh, euh, euh, étatiques qui viennent nous, qui pour. pour... C'est nous dérange. on voulait vraiment qu'il soit organisé. Et c'est l'MADS qui, qui a vraiment la solution. Ceux qui l'ont poussé à la sortie, mais vraiment nous nous demandons l'appel, on fait l'appel au président de la République pour qu'il nous aide. Vraiment, informel qui représente, je me dis que euh, 90% ici à Dakar. Imaginez tous les conteneurs qui viennent de, qui viennent, qui viennent de l'Europe, on les déploie ici. Tous les conteneurs qui, qui, qui viennent de l'Europe, de, friperie. Combien de millions les, marchés hebdomadaires peuvent vraiment régénérer Donc, pour moi, je, me dirais, je dirais bien que le président n'était pas au courant. Bon, en fait, on peut, pas, indiquer personne, on peut pas désigner qui est qui, qui est Mais en tout cas, on peut pas installer dans une localité où y a la mairie, sans, sans pourtant parler avec la mairie. C'est sûr et certain, la mairie est consentante de cela. Non, on est partout. Ils sont partout. On est, aujourd'hui à Liberté 6. Mais demain, il faut nous trouver à Goltapé. Après demain, il faut nous trouver à Piquet. Après demain, après demain, Non, on peut pas dire que sont les mairies qui ont interdit cette Parce qu'il y a quelque chose, il y a des contrats qui se passent entre la